jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal émission bi mooy dalal jàmm salaam eh, ya salaam mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziar encore une fois Dakar instant ñëwaat ànd ak yéen ci événement yu mag a mag yi alors gis ngeen fi nga xamante ne tey ñoo ngi fi a place de la nation donc ñi nga xamante ne ñooy waa kër a Njambe Daaru ah, ki nga xamante ni mooy xalifa bi moom lañ jàkkaarloo nii chaque at ñuy def ab cant bu am am solo wéele li nga xamante ni mooy fi place de la nation jëm ba fa fële nga xamante ni mooy allée centenaire bi donc ñuy woo képp koo xamante ne rek a taalibe nga waaye itam Malick gis nga image yi macha allah gis nga sëñ bi mi ngi noonu nekk ci kanam ànd ak mbooloo gu takkoo takku gis nga baat bi ñu yëkkati laa ilaaha illallah dama lay bàyyi rek nga jël image bi. siyaar waaw woote bi de tey moom woote seex Moussa la lii lépp seex Moussa ko waral waaye nag mu ngi ko jëlee ci xaadimu rasul mi nga xam ne tey mooy wasilaam parce que ñun ñii ñëpp tey ay murit lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa xaadimu rasul mooy sunu sëriñ mooy sëriñu suñu sëriñ moom nag mooy sunu sëriñ moom xaadimu rasul moom Cheikh Moussa Cissé moom la baayam yebaloon mu dem fekki ko njaarim yetu ko gambab lemba lu ko fa yebalaat beneen addiye boo xam ne dañ ko wax gogo fas yët ko Serigne Touba mu fekk njaarim jox ko ko ñaari yoon yooyu ne na gisee naag moom Serigne Touba gisee naag Serigne Touba njaarim moo tax woote bii moom Cheikh Moussa rek ko ko waral e, du dara nag lu dul xamal yàlla ñu dem jaamu yàlla bu saa taxawee bu yàlla dafay kenn du kenn kenn du fekkee loolu rek la daan wax kaay ma xamal leen yàlla su ñu bokk jaamu yàlla bu saa taxawee bu yàlla dafay kenn du yëg su boobaa yow bu lay fay sub sëriñ du la yëg sëriñ bi it bu ko yàlla di fay taalibe yi duñ ko yëg loolu mooy woote bi nit ki nag soo ko bëgg a xamal yàlla il faut nga jaaree ko ci baatub laa ilaha illallah mooy baat boobu ngay dégg moo tax ñu da ko yëkkati waxtu wu ne pour jaam ñi ndax jaamu yàlla mooy baatub laa ilaha illallah saydina muhammad rasulullahi sallallahu taala alihi wa sallam mooy jaamu yàlla sëñ Tuubaa na lépp lu làmmiñ da bëril walla ñu da ko wax ci kàddu ñu da ko dégg baatub laa ilaha illallah moo ko gën wax naa lii te yelloo ma ko faalewu ma ko ma dingat moo tax waxtu wu ne ñu la ko yëkkati ca kaw waaw pour pour waaw fii xam nga li tax ñu taxaw fii mooy xolub dakaar te woote bu ne dangay dem ca xolob réew ma boo bëggee nit ñi wuy dangay fexe ba dem ca xolob réew ma woote fa te woote bii woote njëriñ la du woote boo xam ne dañu daje rek coow ba coow lu jeex rek ñu ñibbi déedéet daje lislaam la ñu xamal nit ñi yàlla ñu dem jaamu ji yàlla moo tax bi ñu jógee ñu ne nañ dal ci xolob dakaar bi su ko defee ñun nit jaam taalib yëpp dajee foofu jaam ñi de seetaan ñëw seetaan si te lay ñi da jël ñoo jël su ko defee su boobaa ñu wax li nga xam ne moom la Cheikh Moussa daan wax xamal ko nit ñi ñu xam ne Cheikh Moussa ab jullit la murit la taalib yëpp Serigne la

non xam nga ndawul moom la yàlla soxla parce que yàlla ba muy wootee yonent bi ñi ko a topp ay ndaw lañ ndaw moo am kàttan moo toll ci digg àdduna donc ndaw moom mooy la porteur de drapeau ci li nga xamante ni mooy kennal yàlla donc loolu dañ fay wane nii xel mu dal la waaw parce que xam nga mag moom weesu na bagage yi xale màggagul kon mag la ndaw la yàlla soxla ku toll ci digg dooleem yaa ngi dégg wax ji kon sant yàlla la daal waaw sant yàlla la

dundal la ci jëmm jóge nañ léegi daara ja Médina cant xewlu nañ fa berne yi jóge nañ ci berne yi ñu ngi ñëw di sant di kennal suñu borom ab cant la daal day dugg ci cadre cant yi comme màggalu tuubaa waaw màggalu comme màggalu Touba. waaw sant daal am ci xaadiru cant nga xamante ne ki nga xam ni moo di Jawriñ Ndiasse nekk fële ca Médina yëkkati na ci ay kàddu ama am solo waaye itam ba tey mbokk internet yi gis ngeen li nga xamante ne mooy marché bu pacifique bi nga xamante ne ñoom waa kër Njambe Daaru ñu ngi koy amee ci lépp rek daal di sant ki nga xamante ne mooy yàlla jël lépp delloo ko ci yàlla ndaxte kat ñi ngi xamal ne daray nekk fi lu dul yàlla ba tax na ñoom ñoo waral seen marché bi uniquement dans le but di sant sant ki nga xamante ni mooy yàlla gis nga li nga xamante ne mooy kuréelu xasida gi leen di bàyyi rek ñu àndandoo daal di koy dund. Musa, Sama

loo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni ma Dakar instant dafay prouver ne Dakar instant ci kanam la jëm incha allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars yi dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant dafi nekkal Baye Fall yi. dafi nekkal Baye Fall yi dañu war a siiw comme ñëpp. looy wax Dakar instant. a Twitter. Dakar instant. Dakar instant à instant.